incha allahu taala. akina alors Imaam man dama bëggoon a ñëw un ci li nga xam ne mooy gàmm bi parce que weeru gàmm bi la ñu daal di nekk rek donc gàmm bi dama bëgg xam ndax faratal la wala sunna la boobu mooy sama première question. Mm. deuxième bi nag euh, mooy est-ce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom daf ko doon célébrer. du farata te du sunna farata mooy loo xamante ne yàlla moo wax ci alxuraan ne def leen ko amul fenn ci alxuraan fooy gis ne yàlla dafa wax ne. Euh, dee leen célébrer juddu yonent bi du sunna parce que sunna mooy loo xamante ne yonent bi salaay salaam moom ci waxam def na ko kon fi ñu ko mën a tënk mooy li ñuy wax al bidaa al mustahsana maanaam lu ñu xewal la ci ginnaaw yonent bi mais nag lu rafet la ci ginnaaw yonent bi sallallahu parce que nag euh, bu ñu demee ci yi nga xamante ne xew na ci ginnaaw yonent bi te lu ci nekk jariñ lislaam lool day bari lool kon bul bëgg a jël yëf yi rek tënk ko ci Euh, lu yonent bi deful woon rek dafa yàq dafa araam bu ñu bëggee tënk yëfi foofu nu ñu jël kaamilu alquran bii nga xamante ne alladi bayna yadina alladi la yatihi albatilu min bayna yadihi wala min xalfi kaamilu alxuraan bi mushaf bi yonent bi bàyyiwu ko fi woon mm-hmm. yonent bi ay pàcc-pàcc la fi bàyyi woon Amadou Ba Amadou euh, Serigne Amadou Tall am amadu <laughs> ah. <laughs> Amadou Tall laa bëggoon wax Amadou Tall am na lu mu yor am na am na ci lu quelques morceaux yu mu yor ca këram ah euh, monsieur kamara am na quelques morceaux yu mu yor ca këram ah borom këru Kayna la star am na quelques morceaux yu mu yor ca këram euh, Pape Malick am na quelques morceaux mu yor ca këram yonent bi fi bàyyi woon bi problème nar am ci ginnaawam alxuraan nar a raaf. ci la saxaaba yi dajale dajale ko. mooy kaamil bi ñu yor tey kon boo ne lépp lu xew ci ginnaaw yeneen bi rek dañ ko war a tasaare kon nañ tasaare kaamil bi. Mhm. naafile yi ñuy def ci jàkka yi weeru koor yonent bi jaaw ko jiite ci jamono Aboubacar sax defu ko Omar ibnul Xataab radiallahu anhu ci jamono muy deuxième xalif du prophète saxaaba yi bëri nañu ñuy naafile si jàkk ji kii di tari fii kii di tari al imran kii di tari suratul baqara kii di tari sabisma rabbikal ala coow li na kur ci la ut benn imaam teg ko ci seen kanam ne leen yéen ca dëgg-dëgg ni ngeen di def ci jumaa ji jël leen imaam bii mu jiite leen di leen jiite naafile yi ngeen topp ci ginnaawam bi ñu ko defee ba noppi mu ne mu yëngal bopp bi ne naumatil bidaatu hadihi lii de lu xew la ci ginnaaw yonent bi waaye nag lu rafet la lu baax la luy ñoŋal luy ñoŋal l'islam ak luy organiser waaye loolu baax na waaye sëñ bi mënuloo wax ne farata la nag dogu ci mënuloo wax ne sunna la mais nag bidaa la lu xew ci ginnaaw yonent bi la mais nag lu rafet la lu lu luy taaral diine la. donc loolu dafay répondre sama deuxième question c'est-à-dire que yonent bi sallallahu alayhi wa na ko def na ko. forme ba mu ko defee ak form forme bi ñu ko defee moo bokkul. Mm. waaye def gi moom am na naka la ko defee yonent bi saa sam daane ciblé tous les lundis di ko woor. ñu ne ko lan moo tax ngay woor tous les lundis mu ne zaalika al la lladhii wulidtu fiihi c'est le jour de ma naissance. Mm, macha donc il célébrait le jour de, de sa naissance par le jeûne chaque semaine kon donc ñun dañ ko defee ci forme di xaar ba dat bi. ñu màggal ko wane suñu kontaante ak suñu mbégte ci kaddu bii ñu yàlla jox mais moom il le faisait tous les semaines. Mm-hmm. et d'ailleurs am na ay musulmans yoo xam ne chaque lundi dañuy dañuy woor Amadou. ci laa bëggoon ñëw mais dama koy laaj léegi ci euh, ñëw na ci defin bi mais dama bëggoon laaj ci njariñ bi yi nga xam ne gàmmu am na ko. Mm-hmm. njëriñ yi ci nekk laa tuaddu wala tuxsaa kenn mënu koo lim kenn mënu koo takk xam tax. am na bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ganee ganee àdduna am na benn jaam bu tuddoon suway batu benn jaam bu jigéen la woon moo ñëw wax Abu Talib ne ko ah Amina am na gone góor la moomeef la woon mu ne ko goreel naa la kooku kooku dafa ñëw rek moom nouvelle bi rek la joxe ñu ñu goreel ko déjà kooku mbir mi jariñ na ko walla mbir mi jariñu ko ah maam borom Touba Mbàkke radiallahu anhu wax na ne képp koo xamante ne fa kullu man anfaqa fii mawlidihi lmusarrafi maalan bi geyri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman xadar yowma xunaynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayral waral mu fahami nee na képp koo xamante ni jël na benn dërëm rek benn dërëm rek dépensé ko ci juddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu tedd mi ëllëg yomal xiyaamati bu ko yàllay fay dina mel ni ku xat ku teewoon ca xare Badar dina mel ni ku teewoon ca yowmu Xuneen jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bal yi di tàkk ci kawam xeej yi di dal ci kawam yëf ya tàng te wanemawul ginnaaw benn yoon ba ba bakkanam des ca ëllëg yomal xiyaamati fi yàlla di ay di fayee ñooñu foofu lay fayee ñi nga ñu doon màggal ci gàttal peut-être benn question hmm. euh, euh, bi moom mooy naissance yonent bi bu mu juddoo hmm. Euh, mais lu mu bëgg a moom mooy pourquoi ñu appesantir plus sur la sur la naissance que sur son décès. ah naissance bi mooy décès bi yonent bi jour bi mu ganee àdduna ci la génne àdduna. ah bon waaw il est il est il est décédé le jour de son anniversaire. ok voilà. <laughs> alors loolu moom moo justifié ñu ko ñu màggal anniversaire. déedéet ñun guddi gi guddi gi la ñu dàkk mais li ma la bëgg a yëgal rek mooy bi jamono ji ngay célébrer maanaam euh, ni ma la ko exemple bi ma la mën a jox koo xamante ne dafa juddu le 30 janvier euh, euh, at sàngam dund nangami at le 30 janvier fi mu def fi mu soufflé. ay ougéem ba pare rek. ñu toog tuuti rek mu mu génn àdduna. loolu le fait ñu koy gàmm loolu moo ko waral wala wala naissance bi moom mooy. naissance bi mooy symbole mooy symbole bi. parce que naissance bi ci la wulidal huda. Mhm. wal kainatu diyaau wa famu zamani tabassumun wa sanaau wala wa diyaau loolu la Amir ah, Ahmed Ahmed Shawqi wax nee na nee na njub njub juddu na ki nga xamante ne moo war a redresser àdduna bi. xéewal ñëw na ki nga xamante ne moo war a leeral àdduna bi fal ka inatu yaa mbooleem univers bi leer na nañ wa fa mu zamaani bu fekkonte ne gém jamono am na gémmiñ te ba sumun gis nga ko muy suuriir wa sanaa u nag indiwaale na ak tagg gu rëy goo xamante ne euh, ci bés boobu rek la am macha allah oustaz comme boobu euh, fii ba ñuy dem ci gàmmu ci loolu rek la ñuy waxtaane dañuy jeexale euh, ci bésu judd gi comme ci loolu nga daanale bi yonent bi juddoo hmm. lan moo am ci ay misaal ci gàttal rek. keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di gane àdduna rek lamma ataaha lafi yi ati nisa ra'at janaaxa tayrin nafaama haala min jusumi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam amina bi mu bi mu tolloo ci aw mat foofu jigéen ñi bu ñu fa tolloo aw aw métit la ñuy yëg mm-hmm. waaye moom dafa gis rek benn laaf boo xamante ne laaf bu rafet boo xam ne kenn mënu ko misaal bu génn ci miir bi di ñëw ba raay tege ci kaw euh, saatu dënnam bi daal di barastiku ba romb biir bi rek sallallahu alayhi wa sallam gane àdduna waaye jaarul ci coono bi jigéen ñi di jaar wa is ata kaana masruran yuqaalu wa mas wa makhuna wa kaana maxtunan bila alami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ganee àdduna liir bu ñu tusngal ci yonent bi la la tàmbalee bi muy judd dañ ko tusngal tusngal bu saf ci bët yi oh. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ganee àdduna euh, nu ñuy wax cordon cordon lan lañ koy waxee ti ombilical dañu ko dagg ci biiru ndeyam faj ko ba mu wér waaye daggee wuñu ko ci kaw suuf loolu kéemtaan la wala du kéemtaan boobu juddu jar naa fàttali ko wala jaru ko ah, ah. nii nga xamante ne bu góor juddoo indiwaale mbuñu ko bu demee ba am ñaari at wala ñetti at wala ñeenti at baayam xarafal ko ñu dindi la nga xamante ne euh, mooy couvre mooy mooy nekk ci pëy mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn defalewu ko àdduna yàlla daf ko ko defal mu muy soog a gane si àdduna kanaa kama kaana maxtuunan bi la bi la alami tey it nag yee indiwulaale euh, wul mu ñàkk wér de dañu ko lenn lu ci nekk dañu ko def ba mu wér jalaala rabbin rafiin qaala xiina ata wa qiila sabaxa fi takbiri zil izami yonent bi salallahu alayhi wa sallama bi mu ganee àdduna rek amina nee na dafa daal di fexe ne bër bër bër ba jaaxaan yëkkati ñaari yëkkati loxoom bi ma koy xool yuumi shababata miqbaadal isaaba asaabiahu misla musabbihi yarnul ulwa zahimami nee na ne bu xéet bëtam yi jàkkaarloo ak asamaan ma gis xale bi ni mu yëkkate loxo ndeyjooram bi banque yeneen baaraam yi ci des tàllal bi jàkkaarloo ak asamaan ma koy déglu mu ne jalaala rabbin rafiin jalaala màgg na rabbin buur rafiin bu yëkkatiku kooku sallallahu alayhi wa sallam moo ko def ci juddoom kooku googu judd jar naa fàttaliku wala jarul a fàttaliku ak a jara fàttaliku. waay waay fi may oustaz fi ma la dagg neexuma ma neexuma ma ma dem ma ma oh, tàntaar. oh macha allah macha allah damaa ngi ci jégalu bu baax nag ndax fi nga ko daggee dafa am solo mais dañ fay teg sunu loxo ba beneen yoon yoon yamut ci benn bu ko defee ñu gën a yaatal euh, kéemtaan wala misaal yu nga xamante ni am na euh, ci juddug yonent bi ñu ngi lay jaajëfal sunu xol sedd na oustaz da dégg alxuraan. macha allah boo koy wax. sama karaw yaram bi day daw. amiin hmm? yal na la yàlla defal jàmm ñu bàyyi la nga tàggatoo fi mu ne nii dañuy joxe flash d'information bi léegi léegi. waaw tàggatoo bu dul tàggatoo la waaye daal maa ngi maa ngi euh, ñaax sama mbokk jullit yëpp ñu àndandoo màggali juddu yonent bi ku mën a dem Touba demal ña ngi fay def ku mën a dem ci Tivaouane demal ku mën a dem ma jën a Baye demal ku mën a dem Laye Layeen waaye ñàkk koo def moom. wóorul. Mhm. alors merci beaucoup à vous tous jaajëfal nañ leen à demain incha allah ngeen baal ma tàggatoo bi waa Régie delloo naa leen seen antenne jaa ngeen jëf mbokk yi.